على من لا نبي بعد سيدنا محمد الأمين ناصر الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وذهبه ومن اتبع بلسان إلى يوم الدين وبعد مبكي جلدي مبكي إسلام mbokki waa àddina rawatina waa senegaal kenn ku nekk ci yéen nu koy fekk fa mu nekk ci suñu xel ak suñu xalaat ñu ne ko jàpp juróomi baat yéen xam ne islaam moo nu ko boole mu làmboo yiw àddina ak àllaaxira mu di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ci kartanal yàlla ñuy santaat yàlla mi nga xam ne moo ñu dooleel ba ñu mën a dellu waat fii pour ñu àndaat ak yéen fa tabaarakallaahu ñu leen di bégee di fas yéene bégal leen teg leen ci yoon suñu kem man-man ñu ñaan yàlla yal yàlla jéggale bàkkaar yépp yàlla yàlla faj feebar yépp yal na yàlla faj njàqare yi ak tiis yi yal na yàlla nangu jaamu yi kanaa rek ñuy ñaanal suñu téléspectateur Serigne Mame bu Diop yal na ko yàlla dëgëral te mu dooleel ko moo xam lu mu bëgg yal na ko yàlla may lu ko njortam suñu naataangi Oustaz Alhassane Sow mi fi toogoon sànq macha allah doon waxtaan ak nun ci wàllu xam-xam moom itam nu koy jaajëfal fa tabaarakallaahu ñu naan ko jusita xayran wa kufita charran ci kartanal yàlla ñëwaat nañu pour ñu ànd ak yéen ci suñu tomb waxtaan tey nag ñu ngi fas yéene waxtaan ci wàllu teggiini yi nga xam ne jullit bi war na koo dëkke ndax jullit addinaam dafay toroxtulu topp yoonu islaam fa tabaarakallaahu ci lu man nekk bàyyiwu ko dara bés bu man doon kàddu gu man di jotaay bu man toog islaam nee na ko nii nga war a defee loola moo tax mu lay ñaax yow mi jullit wala boog mu lay soññu fa tabaarakallaahu boo ñëwee ci mbooloo bala ngaa toog nanga nuyu mbooloo mi ci baatu asalaamaaleykum fa tabaarakallaa boo fa yemee baax na su ko defee ñu man laa wax wa aleykum salaam wa rahmatullah waaye tamit mën nga cee yokk asalaamaaleykum wa rahmatullah su ko defee ñoom ñu mën laa wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaye nag maa ngi lay dénk te li la dénkaat bu fa paase de nga gis nag ñoo xamante ne si ne ay njóobeen la ak ñu sant sow ak ñu sant ndaw kunda ñoo na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala taala bi lu mu ci doon fa tabarakallah lool la ñuy wax lasiisul kitaab guddal wax su ko defee soo paree yow mi jëm ci mbooloo mi ñëw nga ba egsi nga nuyoo nga war ngaa toog waaye maa ngi lay dénk nanga seet fi jotaay bi yem nga toog foofu fa tabaarakallaahu rikk bul seppale mukk bul séparé ñaar ñu toogoon ngay toog ci seen diggante lu dul ni ñoom ñoo la ko diggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon nañu tere nga fekk nit toog nga koy yëkkati pour nga toog fa mu toogoon waaye nag yaatalante baax na du fal force nag tey fekk naa sëriñ Maam Boo Jóob ak sëriñ oh, Alhasan ñu ngi toog ci photo bu mag bi moo bëgg toog seen diggante loola islaam duma ko sant lu dul kane sëriñ Maam Boo daa puus na li imaam puus na ñu ne ma toogal ci diggante bi su boobaa loola dara du ci nekk moo tax kii di Abdullahi ibnu Omar nga xam ne yeneen salaa salaam moom moo ko yar jàngal ko ci daaram la gën ndax baayam moo ko jàngal abdullah ibn omar moomu moo jàngal imam nafia imam nafia moo jàngal imam malik nga xam ne tey macha allah ku tudd diine ji tudd ko moo bu mosaan ñëw ci jotaay moom abdullah ibn omar bu fekkee nit jóg na mu ne ko toogal fii daawul nangu dina wax rek bàyyi leen moo def lu ñu yonent bi sallallahu alayhi wa jàngaloon mooy kane boo ñëwee ci jotaay na nga toog fa jotaay ba yem waaye bul jéggan ñi mukk ngay jàll ca digg ba fa tabaarakallaahu husayfatul yamaaniyu ci hadis boo xam ne jaabir ibnu sumrata moo ñu ko nettali husayfa moomu moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon yi jamono yi muy dund ca madinatul munawwara booba ñetti téeméeri naafiq ñoo nekk ci Madina yonent bi salaa salaam moo ko mu nekk Xusayfa diw ci naafiq yi la bokk bu faatoo bu ko jullee diw ci la bokk ba yëpp daj moo tax si na war ibnu Xattaab moom ku yeewu la woon bu nit masaana faatu moom Xusayfatul Yamaan yu lay xool bu fekkee Xusaynu bokk na ci ñi koy jullee ci la Seydina Umar doog a ñëw nag daal di jullee bu ci bokkul nag mu xam ne kii ci naafiq yi la bokk mu bañ koo jullee waaye jaabir ibnu sumrata nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ masaana ñëw ci moom fa tabaarakallaahu danaa ñu toog leen rek fi jotaay bi yem te sax loola yow boo fekkee ñetti nit toog nga jégge toog ci seen diggante mbooloo mi di yokk di yokk yow yaa nekkoon ci digg bi waaye dafay mujj yow yaay nekki wàcca pegg ba ku weddi xoolal ndakaaru mën nañ cee def misaal rek benn baraaj ndax jamono yi muy tudd benn baraaj ci pegg bi la benn baraaj dong moo fa nekkoon waaye tey koolal benn baraaj jàll na ba Malika mu yokku na ca ba Kër Masaar yokku na ci jàll na léegi fii ba fa tabaarakal sebi kër la ci kaw kër kon booy seet léegi c'est mu nekk ko benn baraag nekk ci digg bi léegi ci pegg bi la nekk li ko waral mooy dëkkuwaay mooy màgge noon kon yow mii ñëw ci jotaay tamit dangay ngay jàng ci loola boo ñëwee nga toog ci pegg yi nit ñi di toog sa ginnaaw bu yàbbee rek bu yàggee nga am digg bi bu fekkee moom nga soxla woon fa tabaarakallaahu yonent salaa salaam doon na ñaan yàlla ku toog ci diggu jotaay mu naan laanallaahu man yajlisu halqal wasatal halqati kon loola nañu koy moytu soo ko defee yow mi ci jotaay bi maa ngi lay dënk na nga teg ay teggiin yu bëree bari ndax buñ la yaatalee ba nga yaatu rek léegi yow nekk nga royukaay xamaa ne ñëpp ci yow la ñuy roy gis nga biñ ñëwee fii ci saal bi macha allah a ah, man mi xam ne man maa jagoo kàddu gi wala boog man ngeen ko jiiñ da ngeen maa teg ci wet bu ko defee yéen ngeen féete ci sama kanam nii kon léegi nekkatuma ci digg bi ndax waxtaan ay nit da ngay war a jàkkaarloo ak ñoom gis nga boo ñëwee ajjuma ci jumaa ji ilimaan bi ci pegg lañ koy teg mu sës ci miir bi bu ko defee mu daal di taxaw jàkkaarloo mbooloo mi su ko defee nag kenn du wax imam rek mooy wax li ko waral mooy foofu yàlla subhaanahu wa taala moom la présenté moom la mu naan laa yatakallamuuna illaa man asina lahu rahmaanu wa sawaban muy yowmal qiyaam léegi bu ko defee yow mi toog ci jotaay bi nanga nga ànd ak respecté mbooloo mi waaye tamit na nga ànd ak dal boo fa nekk ngay rabbale say baaraam comme nii waaye tamit bu fa nekk ngay fo ci sa sikkim waaye tamit bu fa nekk ngay foo ci sa lu mel ne baaraam jaaduwul ci yow itam ngay fab say loxo nga koy dugal ci sa biir bakkan nga ne ci mbooloo mi wala nga yor lu mel ne crédit foo yaa ngay sikkat say bëñ mel ni koy wane ni débiteur laa demoon waaye itam du jaadu ci yow nga yor musuwaar fu ñu la fekk yaa ngay ñandu wala yaa ngay tissooli wala yaa ngay ëbbali bu demee ba munta ñàkk ba munta ñàkk booy ëbbali na nga def nii nga jël sa loxo nga ëpp ko ci sa gimmiñ bu dee càmmuñ bi nag danga koy wëlbati nii ngay def ndax waxoon nañu sànkani islaam bay wala benn yoon foo rekk mu ngi lay sàmm di la orienté ah, jullit bu dee ubbali seytaan dafay taxaw kanamam di ko reetaan di ko mbalee kon na nga nekk nit ku dal waaye tamit bul di bari wax tegtaloo xadis ba yeneen salaa salaam ni woon afdalul kalaami maa xalla wadalla te la ngay wax la muy néew bari na doon lu jub ba pare mu nekk dëgg ba pare mu nekk luy jëriñ mbooloo mi fa tabaarakallaahu kon a dañuy gàttal rek poye bi jeexul incha allah taala ñu ngi ci teggiin yi bu ñu yàlla mayee fekkewaat ba ëllëg ak jàmm ñu daal di continuer su ko defee rek ngeen xaarnu ci deuxième page bi ci kattanu yàlla ah rek rek yi nga xamante ne seen am nañ ko ci ndax ko ci mën a orienté waat ah njub lañu bëggoon doonte yàlla mooy dëppale nit ak njub yàlla ñu dëppale njub yàlla yàlla jéggal na suñuy bàkkaar te musal nu ci bekkoor in uridu ila al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billahi wa alayhi tawakkaltu ilay unib assalaamu aleykum wa rahmatullah إليه من رب